aouzu billahi min seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim laa xawla wala quwwata illa billahi al azim barke sëñ Tuubaa barke Cheikh Ibra mbooloo mi asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu ñëpp di siyaar ñëpp eh, di jox ñëpp seen wàccuwaay di ñaanal ñëpp jàmm ak tawfeex ak taysiir barke sëñ Tuubaa da di kàddu yooyu kàddu yu gàtt loo xamante ni dañ koy bëgg a sànni maanaam dalal suñu gan ñi nga xamante ni ñoo bàyyi ko ba capital Euh, ñoom ñi nga xamante ni ñoo jiital euh, fédération daayira Serigne Touba yi nga xamante ni ñoo nekk ci Argentine yëpp ci njiital Serigne Yankouba Gueye ak sëriñ Bamba Niang euh, toftal ci Serigne Mame Thierno Amar mi toog ak suñu mag suñu jëwriñ Serigne Modou sëy mi nga xamante ni moom ñoo bokk mbuur gañ dëkk di leen siyaare bu baax a baax di leen jox seen wàccuwaay di leen xamal mbooloo mi tamit ñi leen ñii la ñuy àndal ci guddi yi ak bëccëg yi ci wàccaayu màggal bi nga xamante ni moom la ñuy def fii ñu nekk Euh, di leen présenté ñoom ñu ngi nii toog euh, yor kàddu yi jëwriñ euh, di ñu xamal nag ni ñu jëwriñ Yankuba moom it bëggoon naa ñëw waaye dafa am gàllankoor yoo xamante ni ñoo ko gàllankoor ba mënut a ñëw kon loolu moo waral tey ñoom ñaan ñu ñu toog fii sëñ Bamba Niang mi ngi ci yoon bi ak yeneen jëwriñ ñi nga xamante ni ñoo ngi ñëw waaye dañoo xaw a réer moo tax ak kon ñoo ngi siyaare ñëpp di leen jox seen wàccuwaay mm-hmm. di sant bu baax ci teew bi ngeen xamante ni teew ngeen fi nemmi su mbokki taalibe yi nga xamante ñoo nekk mm-hmm. ah, eh, wax dëgg yàlla suñu xol sedd na lool ci yéen mm-hmm. eh, di jotale kàddu yu cant yoo xamante ni mi dafa jógee ci jëwriñ Moustapha mi nga xamante moo jiite mbooloom yépp jëm ci ci yéen waaye xolam sedd na guy ci yéen ndax bu sañoon moo yéen ñeneen àndandoo liggéey bi waaye nag sant na bu baax a baax a baax liggéey bi nga xamante ni bi yéen a koy liggéey te ànd ko mbokk taalibe yépp rafetlu ko kon ñu ngi leen di siyaar bu baax Euh, di wàccee suñu kàddu foofu di jox sëñ maam Thierno Amar mu doxal li nga xamante mooy liggéey bi. bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu wa man tabi'ahum bi ihsaan ila yawmi din mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen nuyu bu baax te di leen ziar yéen ñëpp te jiital ziar bi Serigne Sidi Muxtaar yàlla na fi yàgg loolu te ànd ak wér ak mboolem njabootu Serigne Touba gi euh, di leen ziar bu baax a baax a baax yéen waa daayira Xosepaas ci njiital Serigne Moustapha mi nga xam ne nekku fi di jël ziar bi nag di ko tox teg ci loxol sëñ mataar mi nga xam ne moom it jëwriñ la nga xam ne wax dëgg yàlla fan yi yëpp guddi fu mën a dem ñoo ànd ak moom ci liggéey bi ñu gis paste pasteefam bu baax a baax a baax ginnaaw bi loolu passé di am sawarte ak kontante pour ñëw fii ci daayira Xosé Pass ndax wax dëgg yàlla gis nañ seen pasteef ci liggéeyu dëkk bi comme ñu ngi ci fédération bi lépp lu luñ ciy laaj ñu ngi ciy teew muy li jëm ci kër sañ Touba gi muy li jëm ci addee ji muy lu mën a doon ñu ngi fasal seen yéene bu baax a baax kon bu du woon dara rek amoon nañu yéene pour benn bis ñëw fekk seen daayira loolu li koy firndeel mooy niñ leen fekk nii ci jataay bi nga xam ne yaatu na ñëpp dafa ñëw nañ teew ba am na ñoo xam ne sax xajuñu ci biir di rafet lu baax a baax tamit suñ mbokki julli yi nga xam ne ñoo bokk lislaam bi muy waa Tivaouane TV tamit ñëw tamit fekk si jataay bi day wane na kon lépp benn la ndax lii lu rafet la dañ koy rafetlu bu baax a baax baax di leen ci gën a ñaax di am kontante bu baax a baax a baax baax jataay bi nag dara warlu ko lu dul mooy maanaam di nuyu sama mag sama lépp euh, sëñ Mat mi ma àndal moom it ci di leen nuyu bu baax ci ci seen sëñ ba mi nga xam ne mooy jiite fédération bi ma ngànk daayira yëpp ak sëriñ Bamba ak sëñ Mortala Sall ñëpp ñu ngi ko àndal waaye sëñ ba dafa am ngant loo xam ne guddi yëpp moo doon ànd ak ñun ba tax mënut a ñëw moor Mortala Sall tamit naka noonu sëñ Bamba tamit moom mi ngi ci yoon wi waaye dafa xaw a réer kon ñooñu ñëpp day mel ne kenn rek bu teewee ci fédération bi ñëpp teew na daanaka danoo bëgg lu kii waaye kenn ci yéen waa se Pass bu ku représenté fédération bu fi teewoon day mel ne teew waaye nag dafa am mbooloo moo xam ne bu seen liggéey dee Pastef bu mat sëkk ñu koy doxee day du yell keneen ku ku fa nekkul ca gox booba ñëw teew fa kon ñu ngi rafetlu seen taxawaay di ñaan seen liggéey bi seen taxawaay bi yàlla na yàgg ginnaaw loolu paas nag ku ne xam ne lu ñu fi indi muy karawaanu màggal gi ndax bis bi jëm muy di ci safar bu xasee jub kenn dootu am sago ndax ci la ko tedd gi di defal lépp ci la nit ñi rawantee daanaka loolu du jar ma ciy xoos picc yi sax xam nañ loolu kon nag dañuy rafetlu bu baax seen teewaay di leen gën a soñ soñ sama bopp te li ren nag mbir mi dafa am changement ndax danoo nekk ci loo xam ne mu ñu koy tudde fédération nga xam ne lépp lu ñuy def ci liggéey sëñ Tuubaa bi ñoo koy ànd àndandoo te boobu ba léegi ñi ngi ciy gis seen taxawaay kon ñi ngi leen di soññ bu baax di soñ sama bopp ci màggal gi ñu taxawaay ci taxawaay yi gën a rafet ginnaaw bu loolu passé nag am loo xam danaa ko jàllale tuuti muy gën leen informé xëy na sëñ Martaar doon leen ko wax tamit liggéey bi ren dafa am changement képp koo xam ne yaa ngi ci daayira Xosapass te bëgg a bokk ci liggéey liggéeyu màggal gi ndax dafa am organisation lu amul organisation baaxul te man ma féete ci côté organisation bi na nga jox sëñ Matar sa numéro bu ko defee mu dugal mu jox la ñu dugal la ci biir xidmatul xadim bi bu ko defee bu bis ba côté boo nekkee ci liggéeyu màggal gi ñu xam ne côté booba nga nekkee bu ko defee loolu dana ci baax ñu leen di soññiwaat di soññ si bopp di ñaan képp koo xam ne yaa ngi ñëw ci màggal ga te ñun ñëpp ñëw bu ñuy ñëw ci màggal ga sàkk lu baax ak ak ak ay xéewal te faran ko mën a amee moo ñu moo ñu fa mm-hmm. ñu gën a defaraat euh, jeeg toogaay gën a ku nekk fan la féetale rek nga dox sa kem kattan mm-hmm. ndax amuñu la sëñ Tuubaa comme ni mu koy waxee saa ne sëriñ bi bi muy dem di liggéey daanaka amoon na lu amoon na loo xam ne moom doyee na ko sëkk mm-hmm. waaye ñun moo taxoon mu jaay ruwaam mu jaay ruwaam gii bi muy dem bi muy dem tamit di di di di génn ci liggéey bi booba ñëpp a ngi foon waaye musul woo kenn kenn kenn ci dara na leen ñëw leen dimbali ma wala ñëw jàppale ma te mbooloo nga foon mënoon na ànd ak ay nit waaye dafa dem daal di jaayante suñ borom mu teel ko ruugi bu ko ruugi attanee rek jë bu ko ruugi moom bu ko teelee jëmm ji attan ko kon léegi bun bun bun buñ defee noonu dem dem liggéey li gënoon a metti mu def ko suñ borom defal ko ay xéewal yoo xam ne lot na ci sant ko mu wala ñun ñi nga xam ne ay jaam-jaamaatam lan pour ñu sant la ko suñu borom kon ku ne war nga cee jéem a def loo man ak loo mënut rawatina ci wàllu addiyee ji rawatina ci wàllu comportement yi rawatina ci wàllu yargeeg lépp lu mën a doon kon nag foofu leen leen soññi ñu wàccaay bis bu baax dem ceeg bisimilahi rahmaani rahim génn ceeg alhamdulilahi rabil alamin kon nag xam naa comme ni mu koy waxee euh, ku sëñ ma mi ngi doog a yegg si sëñ Massey mi ngi ni mi ngi nii te temps bi mi ngi dem damay gàttal foofu jox leen ñu ñu feesal seen yéene ndax euh, xam ne ñun ñëpp lu doxal liggéey bi rek moo ñu fa indi kon maa ngi leen nuyu baax te di leen siyaar di sant bu baax a baax seen jataay bii di ñaan yàlla na suñu borom boo jataay yim gën a gën gën a gërëm te am nañ ci yaakaar baax jërë ngeen jëf auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk jullit yi mbokk taalibe yi yéen waa Touba Argentine ñu ngi leen di siyaar bu wér jël siyaar bi di ko teg ci loxol sëriñ Matar mi sëñ Matar Ñang mu jàllale ko ci mboolem koo xam ni e, dëkk nga yaa ngi dëkk ci fii ci xos Touba Xosopaas waaw di ñaan borom bi subhaana wa taala bépp jullit boo xam ne teew nga fi bépp jullit boo xam ne teew nga fi rek suñu borom may la wér ak kàttan ak ay xéewal yoo xam ni di nga ci mën a dimbali njaboot gu ne Sénégal ak képp koo xam ne aju na ci yow ci barkeb Seydina Mouhamed barke Ahmadou Khadim waaw ñu ngi koy ñaanal mbokku taalibi yëpp di ñaan Serigne Sirou Mokhtar Mbacke mu yàgg fi loolu te waaw ak mboolem kilifa goo xam ne yaa ngi Sénégal ak foo mën di bokk maanaam ñu ngi lay ñaanal nga yàgg fi te wér di ñaanal sunu buntu ci Serigne Touba muy Serigne Cheikh Bombali muy Serigne Cheikh Mbacke Madina mu yàgg loolu te waaw di siyaar bu wér rek tey gàttal kàddu gi comme que dafa xaw a guddi di siyaar tey jii bi nga xam ne maanaam Serigne Bamba euh, Serigne Bamba Niang mi nga xam ne moo toog suñu ginnaaw topp seen yankooba maanaam ci fédération bi nga xam ne ñun taalibe yi nga xam ne ñu ngi Argentine yëpp maanaam tey jii ci loxoom laay teg euh, siyaar bi mbokkum bépp bépp taalibe ndax tey jii mooy mooy jëwriñ ji nga xam ne moo bépp taalibe boo xam ne teew nga fi maanaam mooy sa jëwriñ di siyaar tamit suñu mbokku waa kër maam Alaaji Malick Si yi nga xam ne ñoom ñi ngi fi maanaam bi ñu ñëwee rek yam ci ñoom maanaam suñu xol dafa seddu guy ndax sunu sëriñ Cheikh Sidi Moukhtar Mbacke yàlla na fi yàgg te wér bi mu fi toogee loolu la njëkk a dig diglee dañuy dégg bëggatumaa dégg kenn koo xam ni maanaam ab jullit nga nga naan murit nga wala tijaan nga waaw foo mën di bokk mu ni ñëpp ñoo bokk asadoon laa ilaha illallah wa asadoon muhammad rasulullah waaw kon bu ñëwee eh, dugg ci bunt bi yem ci ñoom suñu xol day sedd guy xam ne yéen waa Touba Xossopass yéen a ngi wóyal ndigal loolu waaw di comme so ni ko sëñ maam Thierno waxee rek sëñ maam Thierno Amar ñu ngi koy siyaar ni mu ko waxee rek soññee ci màggalu Serigne Touba gi nga xam ne ci leen jëm muy 18 safar màggal gi nga xam ni maanaam aw ñu lu dul moom waaw bépp xéewal boo xam ni maanaam sunu borom euh, teg na ko sunu loxo ci bis bii lañ ko amee waaw di ñaan borom bi subhaanahu wa taala mbokku jullit yi ak mbokku taalib yi nga xam ne ñu ngi leen fekk fii ci Xosapaas maanaam ñu ngi leen di sant bu wér di leen gërëm ci turu sëñ Yankoba ak sëñ Bamba Ñaŋ mi nga xam ne topp nañ ci moom ndax maanaam ba fédération bi tàmbalee ba tey maanaam bépp jëf ak bépp liggéey boo xam ni maanaam tàmbali nañ ko seen seen saa su ne yéen a ngi ci sëñ Matar Niang mii maanaam ba màggal gi tàmbalee ba mu tàmbalee ba tey maanaam fu ñu dem mi ngi suñu ginnaaw te turu Touba Xosé Fass la fay taxawee kon tamit moom jaral na lool ñu ñu feeñal maanaam jëf jëf muy jëf si fédération bi ci seen kanam yéen ñëpp waaw di di soññee ci màggal gi rek bi ci des mooy ma xam naa dama koy gàttal ci ci wàllum daayira bi nga xam ne fekkee naa ko mën naa cee sànni ñaari kàddu maanaam ñun ñëpp ñu gën koo jàpp ndax fi mu màggal gi mi ngi jub si daayira boo dem nit ñi dañuy fees ba du duñ xaj sa biir te bu màggal gi weesoo maanaam boo fa demee ay nit ñu néew ngay gis te ñu ni ay taalibe Serigne Touba lan te maanaam liggéey Serigne Touba gi du màggal ba màggal du màggal ba màggal liggéeyal Serigne gi ñun ñëpp ay ndaw lan ay moroom lan fii ñun ñëpp ay morom lan maanaam saa su ne maanaam liggéey bu mën di doon nañ ciy jàpp saa su ne maanaam bis boo xam ne yéen a ngi def daayra maanaam nit ku euh, bépp taalibe boo xam ne yaa ngi ci dëkk bi lépp loo mën di def ba heure daayira jot ñu ngi lay ñaar ngir yàlla ak jëmmi Seexul Xaddim mi nga xam ne moom lañ bokk te mënuñu koo séddoo nga bàyyi loo ngay def dem ca daayira ba bu dee bu dee ñaari waxtu la sa wala benn waxtu mu àgg waaw ndax maanaam liggéeyal Sëñ Tuubaa bi du màggalu Tuubaa ba màggal Tuubaa loolu moom ñu ngi koy suñ suñ soñ suñ bopp di ko soñ mbokku taaliba yëpp ñu ngi leen di ñaan ngir yàlla ak jëmmi Sëriñ Tuubaa liggéey Sëriñ Tuubaa bi du màggalu Sëriñ Tuubaa kese maanaam suñu suñu dund gi yëpp la sunu dund gi yëpp la waane foo foo lu si ëpp ci àdduna foo mën di dem bu màggal gi ñëwee rek wala événement foo mën di nit ñëpp dañuy daw ñëw te bu weesoo doo gisati kenn maanaam ñu ngi jégalu bu wér nag ci soññee boobu ndax loolu maanaam bokkul ci loo xam ni day jëmal ab ànd kanam bokkul ci loo xam ni day jëmal ab liggéey kanam ab liggéey li koy jëmale kanam mooy saa su ne maanaam da nga nekk ànd ci ci liggéey bépp waa ndax liggéey bi dafa bari na ci dëkk bi yéen ngi dégg kër sëñ Tuubaa nga xam ne kër lislaam lay doon jullit yàlla yëpp ñoo ko bokk te taxaw na te kër googu li ci war yëpp du du përiwaane ñu ngi jégalu wala bulu bi yaani ñoo ñëw taxawal ko ñooy ñëw taxawal ko ñu jullit yàlla yi taalibe Serigne Touba yi ñëw ñoo taxawal ko te loolu mu mënuñu koo taxawal ci benn weer at mi yëpp lañ ciy topp di liggéey waaw kon dañuy wàcce sunu kàddu ndax guddi na te fi fi ñu leen waxoon fi ngeen di daayira ni naa léegi heure bi jot maanaam comme ko jëruñ sëñ Bamba ñëw na dañ koy bàyyi maanaam mu àggale kàddu yi nga xam ni moo ci des daal di ñaanal jaam ñi maanaam ñu yewee ko beneen yoon ñu ngi jégalu bu wér nag jërëjëf jëf tawfeex taysiir bisimilah ñoom sëñ jéggalu de asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu mbokki taalibe ñu ngi leen di ziar bu baax di leen baalu àq ginnaaw bu ñu leen baalee di ñaanal sëñ Cheikh Sidi Mokhtar Mbacke mu gën a yàgg gën a wér di ko ñaanal sëñ seex Jëmm Fall ak mboolem xalifa Cheikhu Serigne Touba yëpp ni ki noonu di ñaanal taalibe Serigne Touba yëpp. jàmm ju ànd ak tawféex ak gudd fan gu wér gu sax dàq gu ànd ak sax dàq ba kenn ku ci ne yéene gi nga am ci liggéeyam Sëñ Tuubaa bii moom boroom liggéey bi nangul loo ko te làqal la ko fa yàq du yegg ba mukk di ziar eh, sëñ Matar bi nga xam ni moom lañu fekk ci jotaay bi jox ko ziar bi rek mu jotali ñu ko mbooleem dongo gu ne ci jotaay bi di leen jotte ay nuyoo yoo xam ni ci sañu jëwriñ la jóge muy sëriñ Yankooba Gueye mu jottali ko mbooloo mi yëpp moo fi waroon teewal boppam sax waaye fu sa xel mi ne nga ne fa yàlla rek ko mën ba tax na xëy na dafa ne ci ay tabja yoo xam ne moo tax mënut a teew waaye mel na ni bu jëwriñ yi toog yi ma fekk bu ñu toogee rek mel na ni fédération bi yëpp teew na di nuyu sëñ maam Thierno Amar mii at jëwriñ mot say mii at paptal mi ñu àndal ñu ngi ziar nag mboolem waa daayira bi yëpp di nuyu it mbokku taalibe yi nga xam ni ñoom lañu fekk ci jotaay bi ni ñu déggee ñu lim leen fi ku ci mel ni sañu mbokk tiijaan yi muy mbokk waa kër maam Alaaji Malick Sy at mbokk sëñ Seex Sadbu yi nga xam ne ñoo fi ne at waa kër Baye Laay Limaamu ñu ngi leen ziar yéen ñëpp di ñaan rek mboolem kaamil yu ñu fi jàng mbooleem loo xam ni jàng nañ ko ci ay yiw rek yàlla nañu ko yàlla séddaleel sañu mag ñu baax ñooñu nga xam ni bu diineeg lislaam ji demee ba taxaw Sénégal ñoom ñoo ko taaw te it doonoon mbokk yi jege yoo xam ni ko mot say waxee léegi rek liggéey bu rëy wi nga xam ne sëñ Seex sëñ Seex Sidi Moxtaar Mbàkke def na ko ci keroog ba mu toogee xalifa def naa ne ba léegi nii maanaam lu lu xol sedd guy la ndax foo dem rek ñu ngay bennoo at fexe seen lépp doon benn yàlla ñu ko sañ borom nangul mboolem jëf ñu fa jëf soññe yi nag li ñu fi jot fekk moom daanaka mot na sëkk ndax ni ko sëñ maam na Amère waxee léegi ci wàllu màggal gi la sëñ Saliou Mbacke daan wax nag booy wax lu ñëpp xam wax ci wax ci tuuti da cay doy kon mel na ni rek jaru sax ñuy guddal ndax kenn ku ci ne xam na ni wax gi waxtu bi njatt nañu tey it daanaka seeni waxtu bi yëkkati ko jot na waaye di leen xamal rek ne mboolem loo xam ni fédération bi yëkkati na ko rek ah sant nañ ci bu wér santaale ci mbooloo mi nga xam ne maanaam ñoom lañ fekk si ndax keroog defe naa bi ñu njëkkee taxawal eh, fédération bi seen jëwriñ teewoon na fa muy Moustapha ñu ngi eh, eh, ñu ñu ngi koy nuyuwaale bu baax a baax a baax liggéey bu fi jaar it defe naa ne ba liggéey jébbalub àddiyee jiit it fekk na ko Sénégal waaye def na ci liggéey bu am solo kon mel na ne José Sepas moom xëy na sax nag diggante bi ñu toog ñëwaatuñ fi kenn ku ci ne xam nañ dañoo ne ci xat-xat waaye li ñuy def moom ñun ñëpp a ko bokk mu doon benn ñu ngi ciy sant wér nag ndax seen mbooleem jëf yoo xam ne rek jëf ngeen ko seen jëwriñ yi nga xam moom ngeen jiital mbooleem jëf joo xam ne jëf ngeen ko rek ñu ngi leen di seedal ni seen jëwriñ yi ngeen jiital indi nañ ko ba ca kanamu mbooloo ma ca lépp nag mel na ni kon ñoo bokk loo xam ne mënuñu koo séddoo fii mënuñu koo séddoo fa njëm ñu bokk luñ mënut a séddoo nag maanaam nañuy def mooy rafetal seenub ànd te saa su ne di ko nos nos gi nag mooy toog di waxtaan bañ juboo ci benn kàddu dox jëm ca waaye ñu ngi leen di seedal daal ne mbooleem jëf joo xam ne jëf nañ ko te mu tudd te mu jaare ci fédération bi rek wallaay lazim sant nañ ci bu baax a baax a baax seenub jëf li ñuy def nag mooy feddali laxasaay rek ndax na ko sëñ Abdou Khadre daan waxee waaw góor ci yoonu murit moom boo ko déggee mooy feddale sax laxasaay kenn ku ci ne xam na ne nag jëf nañ fi jëf ju am solo joo xam ni ab murit sax warta jëf ba noppi di ci teg bëtam waaye nag lu mbooloo xasa def benn yoon mu rafet rek war nañ saa suñu ne di ko tudd ngir mu doon soññ ci ñoom ngir ba liggéey ñu gën a def lu ko gën a fawxa def naa bu yàggul rek jébbal nañ fi àddiyee joo xam ni bu ma juumul war naa mot 11 millions wala mot 12 millions ci àddiyee joo xam ne seen i jëf ci kër sëñ Touba googu mu sëy mu sëy tudd it kër sëñ Touba googu mu sëy tudd it defe naa ni lu neexoo ci des defe naa ne lu néewoo ci des moom it ñu ngi ñaan yàlla rek incha bu ñu jugee ci màggal gi xam naa dees na gën a soññ jëm ca bu ko defee ñu laf ko rek dox ci yeneen yi ciy des kon nag ñu ngi leen di ziar bu baax daanaka li ñu jot a wax yëpp mat wax nañ ko. te it daanaka eh, ay ay ay ay ay ay ay taalibe ngeen sëñ Touba rek lañ bokk yaakaar ñu ñëpp li ñuy gën a soññe rek mooy ñu gën a jàpp ci màggalu sëñ Touba gi te xam ni lenn la ci ponk liggéey bi noonu ko mu tey soññe léegi nag lu ci am solo la maanaam bu ñu doon muriti programme ndax sëñ Touba de fii mu yeggale liggéeyam bii bu ko doon wutali programme du tax mu yegg si fi kon nag nañ leen jàpp ci liggéey bi te xam ni giiru sëñu dund la giiru sëñu dund la buñ ko wutal wa ab buñ ko wutal lu buñ ko wutali at heure bu daayira jotee nañ leen ci dem ñun ñëpp te xam ni li ñuy jëf mu jëm sëñ tubaat ci dajab daayira bi rek lañ ko mën a defee kon loolu moom ñu ngi leen ci woo bu baax a baax a baax a baax ñu góorgóorlu si ñëpp xam naa dañuy yemale foofu kàddu yi rek ndax waaw xam naa dañuy yemale foofu sañu kàddu rek eh, balaa ñu kaa daaneel nag di leen xamal rek Eh, sëñ Matar mi nga xam ni mooy seenu topp jëwriñ doon jëwriñ ci yéen ginnaaw bi fi Moustapha newul jébbal nañu àddiya joo xam ju jëm ci màggal gi la mu toll ci 30 000 at lu teg bu soobee yàlla xam naa eh, comme noonu rek bu ñu demee ca daje bi nga xam moom la ñuy def altine bu jot danañ ko leeral jëw